yaa maalikal mulki yaa man jalla al xawaadin jamii al waraa wa wa barakaatu xam naa nee li wolof di wax lu la bett man la moo tax xamul woon ne lu mel nii la fi fekk waaye xam na ne bisub Cheikh Abdul Xaadir lépp yiw la bu ko defee rek gannaaw bi ñu santoo yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sant Serigne Touba sant Cheikh Mamadou Fadel mi ko boole ci Serigne Touba di ñaan nag yàlla taasu seen barke ca yàlla fayal ñu ko nee na dellu nag di sant Cheikh Abdoul Khadir mi nga xam ne moo tax ñu daje fii tey di ñaan yàlla mu taas ñu ci barkeem te yàlla fayal nu ko di ñaanal itam seex munta Muhammadul Muntaqa xalif général de Mouride yàlla yàggal ko fi lool ci wéral ko ba li muy liggéeyal ak li mu bëgg a liggéeyal Serigne Touba ak Cheikh Mamadou Bachir ak lislaam bépp ak réew mépp ak àdduna bi mu àddane ko ci sago te nu fekke ko ci ànd koog moom dee na dellu nag di nuyu sunu doomi sëriñ ju tedd ji muy Cheikh Mamadou Bachir moom Cheikh Abdoul Khadir nee na xam na ne lii mu def rek wane na tolluwaayam kon nee na ñu koy sant bu baax di ko gërëm bu baax di ko ziyaara bu baax ci li tax kilifaam yu baax yi ku fi ñëw gën koo doyloo moom la ne jikko jooju ci moom la nee lool nag wane na jikko ji lii mu def léegi rek wane na ko kon nag nee na ñu ngi koy nuyu di nuyu nag mbooloo mi nga xam ne tedd mi ñu fekk fii góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi di leen ndokkeel ci bis bu tedd bii ñu bokk nga xam ne bis bi bisu lislaam bépp la bisu diine yépp la bisu réew mépp la nee na def na ne Cheikh Abdoul Khadir li nga xam ne dégg nañ ko ñu wax ko ci waxtaankat yi doy na sëkk koo xam ne daraja ji nga ëndaale dégg nañ ko ba tàyyi la ko Serigne Touba wax lam ca wax maam Thierno ca loola di dox ba léegi kon bisam ñépp ci sawar képp lu bëgg lu baax wala nga am dara ci diine am ci tompu leer da ko bëgg danga ci sawar danga ci am yéene ndax ne ñoom ñii nag yàqun dara ci loola lu dul yokk ko saytu ko sàmm ko gën koo leeral kon nag sëriñ bi yal na la yàlla dimbale yal na nu yàlla lafal cat yal na yàlla guddal sa fan ca wéral la defal na ko ñun ñëpp ci ay xéewal ak mucc ci barke borom Tuubaa barke Cheikh Abdou Khadir moom moom nga xam ne dama ne woon ci moom ku am dara ci tomb leer wa wala nga bëgg dara ci mbaax wala nga am dara ci mbaax soo ko gisee moom Cheikh Abdou Khadir da ko sopp bu ngeen jëflantee da ko naw bu la ñaanalee da nga ko gëm loolu nag yàlla ko defal. yéen yàlla ba wax ne wa ma naa bi ma alim naa kon nag buñ ci nekkoon xaw ma li ñuy wax lu mu doon dama xam ne lu mu baax la rek ndax sëriñ bi dañu nekk ci lu lu lu duyoog loolu li ko tax a génn ci mbooloo mii fekk ci jataay bi ci waxtu wii ci bisu sëñ Abdou Khadre rek ni mu xate ak la koy xaar ca biir ak li koy xaar ci biti kon na xam na ne liñ fi wax lépp aw yiw la kon kàddu gii mu ñuy jox baax a tax ak mën a yaatal ak mën a rafetal waaye jëru ko ndax ñun xamul lu ñuy wax waaye xam sañ nañoo am ak bëgg sañ sañ nañoo am ak cofeel sañ nañoo am it ak coloré te loola lépp nag lañuy dox di feddli si tey feddi ko feddli ci yow mii ak mbokkam yu tedd yi nga xam ñoom la bokkal sëriñ bi ak taalibeem yu tedd yi ak wëllëre yépp kon sëriñ bi gënuñoo bëgguñoo guddal ndax xam naa ne liñ fi wax ak liñ fi nar a wax mooy gën a rafet li may wax mooy gën a jotal mooy gën a mat danga baax rek jox ñu kàddu gi waaye daanaka jëru ko kon nag ñu ngi ñaan nga ñaanal mbooloo mi ñu fekk ko ay déwéni déwén yu bëree bari ci ànd akuk wér akuk mucc akuk yokk ci yàlla nag def jàmm ci réew mi yàggal fi Cheikh Mountakha yàggal fi it kilifa diine yëpp yàggal fi Serigne Cheikh Mbacke mi bokk ci mi nekk ci bopp kër Cheikh Abdoul Khadir ak rakkam yu tedd yëpp yu góor ñi ak ñu jigéen ñi ak magam yu tedd yi ak nun taalibe yëpp nag ci barke borom Touba barke Cheikh Abdoul Khadir Cheikh Abdoul Khadir darajaam mën na lu ne xam naa ci loo xam ne suñu ma ko wax ci mbooloo sañu ma ko wax ci mbooloo kon bu ko defee rek bëgguñoo guddal guddal guddal ñu ñaan nag yàlla guddal sa fan wéral la lafal la cat lafal ñu làmmiñ ci barke sëñ Tuubaa ba mission bu rëy bii la sëriñ bi jox nga àggale ko lu kawe sa njot ci barke sëñ Tuubaa ndax mag ñi ñoom làmbutuwuñ li ñuy def xam nañ ko la tàmbulee ci Cheikh Modou Lamine Cheikh Sidil Muxtaar sëñ Muntaxa Mbàkke mii yàlla na fi yàgg ci wér liñ la jox ci confiance te nga mat ko sëkk nag làmbatuwuñ kon loolu nag sëñ bi yàlla na yàgg yàlla defal la ci ndam ndax ñun ñëpp nga fi wutu ca mat ko sëkk kon nag jërë ngeen jëf yàlla nañ ko fekkaat yu bari lool ànd ak mucc ak wér ak xéwal ci barke borom Tuubaa jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatulah tàllal leen sëñ